taxawee bu dee àtte lislaam dañ koy dóor téeméeri yat mhm. moo xam góor la moo xam jigéen la a mhm. azaniyatu wa zani yàlla dafa ni buy wax yàlla buy wax foofu mhm. jigéen la jiital parce que dafa ni jigéen moo mën a pro moo mën a convaincre góor ba nax ko mais raar na góor di convaincre jigéen di ko nax mu ne njaalookat bu jigéen ak njaalookat bu góor kenn ku ne dañ lay dóor téeméeri yat mais li garaaw nekkul foofu de bu fekkee ne da ngaa am borom kër njaaloo dañ lay dañ dañuy la di la sànni xeer ba nga dee moo xam góor ga moo xam jigéen ga hmm? dafa ci yam de ibu xam nga lu ko rawaat bu fekkee ne mës ngaa sëy ba divorcé hmm. mës ngaa sëy ba divorcé boo njaaloowee dañ lay atte atte wu ku ak ku ne ci buum bu fekkee ni góor nga boo xam ni am nga soxna tamit ba tàggoog moom boo njaaloowee yow itam dañ lay atte atte wu comme ku am soxna dañuy gas ba mu xóot di jël ay xeer di la ko sànni ba nga dee. Mm. Ah, mais ah, oustaz ah, dafa amoon. ah dëkk bi kay doom. ñii def kay ay ay ko lool. <laughs> bari nay mort vivant. ci dafa amoon benn laaj bu ma bëggoon laaj. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que njaaloo dafa bëri façon. may laaj ñi nga xamante ni dañuy yoo góor yi ak jigéen yi ndax par exemple bu ñu àndee maanaam comme ni xale yi tuddee. dem jëli dem jëli verre affaire yooyu noonu. ndax loolu njaaloo la parce que dinañ laalante seen loxo yi affaire yooyu dinañ raayante. Mm-hmm. wala njaaloo mooy. njaaloo au vrai waa sëy bi. dafa am darakaat. lakk quoi dafa am bàkkaar boo xamante ni tey jii ñeenti nit. Mm-hmm. yu bokkul fu ñu jugee. Mm-hmm. mama day jóge Touba. Ibou Ndim jugee Tivaouane. Jean jugee Kaolack. Nacu jugee Bambey. yëgante wuñ ñu daje ci benn kër. ibeendoo benn néeg. yam ci ñaar ñuy njaaloo xoola yàlla xam nga loolu yombul ci àdduna mhm. pour bett ñooñu doog leen di àtte àtte ñaar ñu doon njaaloo loolu mooy ñu fekk ku góor ki ci kaw ku jigéen ki ñuy sëy mais xam nga bett ñaari nit ñuy fóonante kooku kenn du ci doon nit téeméer yat dafa di bàkkaar mhm. waaye du njaaloo est que xam nga ni mamaa di wax may apprécier baatam yàllaa ngi mu ci bindal bàkkaar mhm. te yàlla day wax ci alxuraan ni yaa nisaa an nabii يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتخيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يين ني بوكو تي خيت يونت بي دي جيجين بو غين دي واخ باي لين دي لوك سين فوا سافا لي زافير تو فا بيان سافا يالا نينا يالا داي واخ تي القران ني باي لين كو ناخ امنا غور ньо خامني سين خول دا فيبال امنا ньо خامني بو لين نيو رك نيو سين بوب اي غور am ñoo xamanteni bu la accolaté rek faaw ñu jëm la nacc seen kaw pour yëg bànneex mm-hmm. mais lax dari dafa araamal ci la lazuzu ngay bànneexu bi mm-hmm. kalaamiha ci ay waxu jigéen laa takkal buusina waaw xale bi bu am garaaw laal bul jege mm-hmm. bokkul ak njaaloo bokkul nga ànd ak nit dem dem parce que nit ki ngay labat may nañ la trois mois taxawal mm-hmm. mais da ngay gis koo xamante naa la sama far bi ku fidèle la wala sama gel bi moom génn nañ cinq ans loolu du fidèle de yambar la ñàkk jom kenn ko xam ba alaayu mi diini na ñoo xam ne loolu la ñuy tiitaroo mën ngaa génn nit dix ans ngeen sëy un an nga gis ci moom jikko bu la doyul mm. na fii tey koo xamante ne appartement meublé la ne mm. jël photom def fa di fay sa fin du mois mm. loué benn oto ngeen xamante mun la maa fi moom chaque jour ngeen i bon ngay dem ci appartement ba di ko fa fekk wala kër ga fekk moom appartement meublé la loué mm-hmm. ngeen dem yéen ñaar un mois wala une semaine wala deux semaines ñu ne jigéen ji de génnaat na ci sëy bi fekk daa gisul ci waajo lu dal xelam mm-hmm. Mm-hmm. parce que départu ànd boo gis bu ko fen bu ci fen amee ba ndaw si xam ko ni da nga koo fen dootu la wóolu mhm. parce que danaan ñeme nga lu ne mhm. bari na jigéen ju dugg sëy génnaat rek loolu moo koy waral bari na tamit jigéen joo xam ne day ñëw rek attaqué wu dugg mais sëy boo gis ci àdduna rek njort lu rafet la mhm. ak defarante eh, nafi fi gis nga ku foog ni sëy kawlal la rek ak lekk ak naan boo demee ci gétt ga fekk ko fa xar yaa ngi koy def bëy yaa ngi koy def mais pour sëy lenn kase moo ci avantage bi gis naa ci yow daaw ba ren jikko ju ma neexul changé naa ko ba sa famille xam ne am na lu newoon ci yow lu ma dindi man ku góor ki naqari woon naa deret compliqué woon naa gaaw naa gis sama bopp siis naa sama soxna fexe ba ñëw ba am jikko yu mu dindi ci man ba sama ay rakk yu jigéen sama ay rakk yu góor sama ñoom yaay xam ni kat sama soxna am na lu mu dindi ci man loolu mooy avantage du sëy mm-hmm. mais du jënd oto bu rafet du jënd téléphone du nàngam du nangam non yooyu du sëy mm-hmm.